ñun ay sàmm lañ dañoo def sàmm métier métier boo xam ne ci la ñuy dund ci la ñuy dundal suñu njaboot ci la ñu yoree suñu askan ci la ñuy xeex li nga xam ne lii tey moo xew ci jaww ji ci àddina bi mooy immigration clandestine xale yii di e, dee ci géej bi tax na tey ñu gën a jógaat fabuwaat pour xeex loolu ci biir réew mi ren e, tey tey gi lii priorité càmm gi mooy am na loo xam ne li wax na ko léegi mooy diggante béykat ak sàmmkat fi mu nekk ne ci région de Djourbel rey nañ ci lu toll ñaari sàmm gaañ nañ ci lu toll ñeenti sàmm sàmm yu ndaw yi kon loolu nekk na jafe-jafe démb bi may ñëw màngaan yi nekk Koungheul Baccel eh, màngaan yi nekk Bala muy Salif Sow nee nañu ma maire yi dañoo def ay arrêté ne sàmm yi waruñoo dugg waruñoo ñëw ci euh, zone transhumance lu dul premier janvier te fi mu nekk nii am na ñoo xam ne jóg nañu départ nañu passé ñii jege nañu Koungheul ñii yeggaguñu Koungheul te ñoom arrêté boobu yëguñu ko ma defe ne booy liggéey ak nit da ngeen waxtaan ngeen diisoo ñun kilifa yi ñu yëgal ñu ko bu ko defee ñu xam naka la ñuy def. bu sàmm yi bu ñu naree génn di ñëw ñu xam naka lañuy ñëwee jafe-jafe beneen bi mooy daa yi dafa teel a ñëw am na sax lu ñu fay mais daa yi nekk na jafe-jafe boo xam ne mel na ni rakki dee la ndax dund jur gi bu amul lu ñu koy dundalee rek mel na ni rakki dee la. Euh, may dëggal rek li nga xam ne sama jigéen jay Dieynaba Sidi bi wax na ko ak itam sama euh, doomu baay di suma xarit muy Arouna Gallo wax nañu ko li ñu wax rek mooy liy sàmmkat yëpp di dund. mooy itam li nga xam ne lii gën moom la sàmm yi di nekk ñu gërëm nag président de la république bu baax ndax xam cër bi mu jox élevage ba tax na tey bi ministre bi ñëwee tey wax nañu fan la jëm wax nañu lim nar a def fi mu jëm ak lim nar a def bokk na ci fexe ba liñ bokk te mënuñ koo séddoo muy fi ñuy sàmmee te di ko bayee nu fexe ba def ca démocratie ba ca war fexe itam ba humaniser ko nga xam ne sàmm bi day xam ne baykat la baykat bi xam ne sàmm la ñoo bokk lépp te mënuñu tàqali ko su ko defee loola bu ñu ko defee rafetal rek ñu xam ne élevage nag la muy jëriñ ci réew mi mooy nit ñaari ween la am élevage mooy benn ween bi ba ca des mooy mbay mi benn ween bu ci taxaw rek doom bi yëg ko nit ki yëg ko te loolu nag li koy doxal rek mooy sàmmkat yi ñu dogu lañ boroomi xel lañ mais baykat yi ñu dogu lañ boroomi xel lañ liñ bokk muy àll bi yaatu na dañuy defee rek ba defaraat xalaat yi moo tax bi ministre bi nag carte pastorale bii gën nañ fexe ba defar ko ñu sàmmonteeg moom it ni ñuy keneen ku ne mu jox la sa cër te jàpp naa ne ay borom xel nekk ci élevage borom xel nekk ci mbay mi président jiitu na itam te itam dana wane yoon wu leer te ministre bii mu itam ñu ngi koy ñaanal di ko félicité ndax ni dégg ay xalaatam daal am nañu yaakaar yaakaar judduwaat na ne bu nu defee noonu rek jàmm dana ñëw élevage dox lam doon dox agriculture dox la mu doon dox mu nekk koom-koomu Sénégal éleveur bu gisee sàmmkat daa bay baykat daanu ci koom baykat daanu ci koom ñu xam ne doomu ndey gisee lañ doomu bàyyi gisee lañ